Seydou Laat danoo jàngaloon wax ni lépp looy bëgg su yàggee loolaa lay moom kon na ngeen bëgg yàlla looy bëgg rek bu yàggee loola moom la kon na ngeen bëgg yàlla ndax yàlla moom leen Baye Fall mooy ki nga ne daa bëgg yàlla yàllaa ko gën a léppam. moo wax ni su ngeen bëggee moo sopp leen da topp yoonte bi man yutu rasoola faqad ata Allah ku topp yonte bi topp nga yàlla kon ku bëgg yàlla dangay topp yonte bi sallallahu alayhi wasallam boo toppee yàlla ba noppi nag nga gëm yàlla nag gëm nag mooy jiitu gëm yàlla dëgg-dëgg gëm yàlla nag mooy yaa ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqaatihi wala tamuutunna illa wa antum muslimun yàlla nee na yéen ñi ma gëm da ngeen may ragal dëgg-dëgg ragal yàlla ñu ne ko mooy ran mu ne doo tooñ sa borom doo tooñ sa borom Baye Fall du tooñ boromam du tooñ boromam maam Baye Fall bañ ko laaj sëñ Modou Fall lan mooy ak Baye Fall mooy mooy ki nga xamee ni day def ndigal te bàyyi ay tere li li yàlla digle lépp ko mënu mënu ko jëf ndax li yàlla liggéey lépp yàlla euh, say la wu diis woo xamee ñu ko attan bëriwul waaye waaye nag soo mën na yenu say wi fa taqola mastatahtum nga yenu ci nag ci say nga rocceeg mat di lang-langeeg moom bàyyi fan nag say yan yan yem trop ci mat gëm ci rocci moo moo gën a diis ci mat yi gën ci rëy mooy bëgg yàlla bu wér gëm yàlla bu wér wóolu yàlla bu wér di tudd yàlla bu wér ak yonente bi di liggéeyal yàlla bu wér kon bu gëm yàlla amee yaa ayyuhal lazina aamanu ittaqullah a tuqaatihi wa laa tamuutunna illaa wa antum muslimuun doo tooñ sa borom doo tooñ sa morom loolu muy dëgg-dëgg ragal yàlla doo tooñ sa borom doo tooñ sa morom wala tamuutunna illaa wa antum muslimuun to doo bu leen fàttu mukk te jébbalu leen doo leen doon doon leen ay julit joxe joxe joxe bu leen fàttu joxewu leen seen bopp lillaahi kon loolu mooy gëm yàlla wóolu yàlla nag mooy li nga yor lépp yàlla dana jëna nga joxe ko attan koo joxe ngir yàlla maam lamb damay wax ni Baye Fall boo koy natt ci nit ki ak Baye Fallam ku la gën a gëm ëllëg rek moo la gën di Baye Fall Baye Fall mooy ki nga xam ne ba muy jaayanteeg moom maam Cheikh ba muy jaayanteeg sëñ Touba da wax ne ko wërloo maa yow fii ci euh, ko soxlawu ma ko fi lu toll li dee ci ngir gëm ëllëgëm Baye mooy ki nga xam ne li mu am lépp attan na koo ñàkk tey jii ngir yàlla doo la di Baye Fall sëñ Mourou Amity Fall di radiyallahu anhu yàlla yàlla yokk leeram bi mu fi nekkee gis nañ ni chaque année deux cent millions lay takk di ko jox di ko joxe addiya te bu ko sëñ bi liggéey la mu dem liggéey liggéeyi daaw dajale adduna lu mu mës a am rek yàlla la ko jox deux cent la daa jox par année bi muy dem cent soixante-dix-huit millions la fi bàyyi ay doomam takk ko te ko joxoy sëñ Cheikh Wade jëm mu jébb ko sëñ Saliou sëñ Saliou danaa wax salaaw moos de mboolem ñi sëñ Tuubaa defal seen maam yéen rek a fi indi addiya ndax addiya ak siyaar daa bokkul addiya fa mu fa muy dafay dafay dara fi muy jëm dara faa jëriñ dara siyaar nag man nga am fukki million ak jël benn million bi siyaar yi suñu sëriñ loola ab siyaar la ndax la lam fa bàyyi da ëpp fuuf la nga yóbbu sëñ Modou nag dina mu Modou Aminta loolu la ñu jàngal miraax sa bopp li nga am lépp nga nga jox ko ngir yàlla kooku nag mooy ki yóoru yàlla kooku mooy kooku nag mooy ki yàlla kooku di bay Faal te it Alxuraan moo na ko jàngal kat lan tanaalul birra hattaa tunfiqu mimmaa tuhibbuun du ngeen am mukk li ngeen gën a bëgg te ñàkkule li ngeen gën a bëgg nit ki lim gën a bëgg lim gën a bëgg koy may nit nag lim mu gën a bëgg ci boppam mooy alalam ak bakkanam ak ak njabootam maam Cheikh Ibra nag foofu la ñu féete woon sëñ Touba maam tàggat ci ak njabootam it lu ñu am jox sëñ Touba lu ñu lu ñu jur jox sëñ Touba lu ñu mën liggéeyal ko sëñ Touba loolu mooy wóolu yàlla. baykat bi kat su su bàq bi tooyee buy dem ci àll ba di fa di faraasu wóolu yàlla tax ma koy def wala muy fab kembam di ko di si bàq bi fab lu mat nangam yu bëri koy kemb sool ko ci suuf wóolu gu wóolu ni yàlla dana ko saxal. moo tax mu di ko def te yàlla moo wax ni masal la suun yoon foona amwaalum fi sabilillahi ka masali abbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mihata batin wallahu yudaahi liman yasaa wallahu waasiun aliim ñii ñàkk seen alal ci yoonu ci yoonu ci yoonu yàlla mu loolu di Baye Fall Baye Fall yi joxu joxu ñu ñëw fa ñu de ñi fi gën a nekkal yàlla la ñuy jox muy wàkk Sëñ Tuubaa ñi ñi ñàkk seen alal ci yoonu yàlla ka masali abbatin nee day mel ne benn pepp anbatat boo xam ne dañu ko def ci bàq zab sanabil mu juróom-ñaari gub fi kulli sunbulatin bu mu ca nekk mi ata abatin téeméer pepp nekk ci yàlla neen noonu laa koy fayee ñu ne ko lu tax mu wallaahu yu daaxee fi ne ma nee saaw wallaahu waasiun aliim te man man yàlla may fu lindil lu ma neex te ma daj fépp xam lépp ni fépp bàyyi faale lépp lu ñuy lu ñuy def ci yàlla lañ ko teg lu ñuy joxe yàlla tax ñu koy def bu ñuy liggéey it yàlla tax ñuy liggéey kon loolu mooy wóolu yàlla liggéeyal yàlla nag weesul mooy allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ahsanu daraja inda allah wa ulaika humul faizun sóor tawba allazina amanu bu ñu laaj lan mooy Baay Faal demal ci sóor tawba jël aaya boobu neen lii moo dig Baay Faal allazina amanu gaa yi gëm yàlla wa hajaru te gàddaay bàyyi lu bon wa jahadu fi sabilillahi ñu jaat ci yoon yàlla bi amwalihim wa anfusihim ci joxe seen alal ak seen doole bu ñu laajee addee ñoo ci man bu sëñ bii balee Touba yi noo koy bale suñuy buddi ëkk yi xel koom noo koy buddi li gën a métti ci yoon yi Baye Fall yi koy def lool loolu mooy bi amwaali mu anfusim joxe sa alal ak sa bakkan yàlla nee na nag ah sama daraja indallah ñooñu ñoo gën a rëy daraja ci yàlla te wa ulaayka humul faaizuuna ñooy ñooy way taxe balaa kenn tàbb ajjana ñooñu dugg bu noppi kon loolu mooy liggéeyal yàlla